am nañu mbégte ak kontaan ñëw fi nga xam moom mooy commune bu Djiddah Thiaroye Kaw nekk ci département bu Pikine nekk fekk na benn responsable benn jeune boo xam ne miin ngeen ko bu baax ci réseaux sociaux yi rawat na SBT Média muy nit koo xam si ni macha allah jeune la boo xam ne bu engagé chaque jour mi ngi taxaw di xam ne moom mooy goxam rawat na commune bi macha allah nekk nag jeune boo xam si seen bu engagé la ànd ak ay moromu jeune am muy Sidi Fall balaa ñu ñëw ci waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet bu ko defee ñëw ci waxtaan Sidi ngi lay nuyu di la ziar di la waa salaamaaleykum waa Jidda Caaroy Kaw salaamaaleykum Sénégal comme lay baax chaque jour rek Jidda moom mooy suma yitte mooy suma lépp moo tax rawatina buy Fatima gi ma dekkee nga fekk ma fi ma lay nuyu Jidda Caaroy Kaw gi yëpp di profité di jaalewaale sunu benn symbole bi fii làkku barki démb demb ñu démb lañ ko doon rob barki démb la làkku ñu ko doon rob démb muy Paal Sandaw nekkoon naay fii si suñu jàkka ji ñu koy jaale waa këram di ko jàllee guy Fatima gi yëpp di wax suufu Cerno Njaay gi ñu ko yóbbu yàlla na suuf yóbbu oyof si ko am si barke yonent maa ngi nuyu nag jide caaray kaw gi yëpp jide caaray kaw suma Paris suma Almadi maa leen di ziar di leen bëggee. waaw jide caaray kaw sa Paris sa Almadi mais euh, tey euh, boo nuyoo te nuyo fi nga daan nuyoo parce que am na foofu mil euh, Sidi Fall yaax naa président mouvement ànd teew suñu gox. waaw Sidi Fall président mouvement ànd teew suñu gox loolu moom moom laa daan nuyoo. mais léegi yàlla daal def nii ma nekk si yitte yu bari ba nga xam ne maa ngi si biir mouvement bi ba léegi mais damay jël mouvement bi teg ko suma loxo grand bi di Xaadim Mbay muy doxal mu si doxal nag lu am solo macha allah teewul maa ngi si biir mouvement bi nag nekk fa membre mais yàqalu ma dara suma politique ak suma lépp amul len lu ma si yàqal waaw léegi nag mais mbirum posident bi moom teg naa ko si grand Xaadim mu doxal. kon nekkatoo président ci mouvement boobu. non nekkatuma président ci mouvement boobu. lan est-ce que mën nañu xam ak wala Djida Thiaroye ko parce que tey yaakaar naa ne mënoo dugg ci kër yëpp leeral ne lii moo tax mais à travers SBT Média est-ce que tey ci lu gàtt mën nga leeral lan moo tax nekkatoo président. waaw non li mën naa see leeral tuuti rek muy li ma wax sama biir wax léegi rek muy ne sama yitte moo bari ba nga xam ne man ne suma grand bii mën na ko doxal ma teg ko ci loxoom te wóolu naa ne dina ko doxal ndax naa li ma fi def dina fi def lu raw loolu. man nag maa jël sax suma yoon bopp boo xam ne uniquement ne pour léegi lii laay def si politique mais li jëm si mouvement bi moom ma teg ko suma grand frère bii di Xaadim Mbay mu doxal ko c'est-à-dire am na lu poussé ba tax nga jël mouvement bi joxe ko quand même. daara daara poussé lu dul yi tey jamono donc suma liggéey maytuma benn temps bi nga xam ne mun naa di doxal mouvement bi nu mu ko bëggee doxalee te xam naa ne grand Xaadim dina ko mën a doxalee noonu moo jox ko grand Xaadim mu doxal. Ah. donc donc formation yow béykat yi mouvement bi donc ginnaaw bi nga xamante ne engage wu ci benn ginnaaw ba ci benn parce que mouvement présidentiel yaakaar naa ngeen di jàppale tey am na ñeneen ñoo xamante ni donc ak yi fi xew am na yeneen jeunes yoo xam ne dañu am beneen côté boo xam ne fa lañ taxawee est-ce que loolu moo tax pression boobu moo tax nga bëgg a. Euh, non non <laughs> du pression boobu sax moo tax ma bëgg a lii ma bëgg a jox mouvement bi ndax lu jiitu ko mais actuellement nii li may wax chaque jour rek ñun moom. pënd bi wureegut comme nu man ku ma xam-xam ma eh, APR nga ma xamee te pënd bi wureegut sunu président waxagul ne kii lay teg ba tax na ñu ngi toog di ko déglu rek di ko taaxilu ba xam kan la ñuy teg waaye comme moom la ñu topp rek nañu taaxilu mais nag si luñ ko topp topp tamit xëy na bis na mën na ñëw mu teg koo xam ne nag duñu arrangé bu boobaa nag moom mu ñu xool ku nekk fa nga jaar rek ah waaw tey bi nga béggee ñàkk bokk président parce que ñëpp la ñoon xaar 2024 président parce que ci ci ci ci constitution bi donc ñëpp ci constitution bi loi réew mais nit kàddu moo ëpp doole lépp parce que président moo ne woon benn mandat lay def ñaari mandat lay def donc tey def na def na 2012 ba 2019 yàlla def mu ñëwaat 2019 ba war a dem 2024 donc tey ci ci ci ci constitution bi 2024 euh, président dafa war a nekk candidat mais mu sàmm kàddoom ba tax mu ne nekkul président te ñëpp doon xaar président nekk euh, candidat euh, tey bi nga yégee noonu ban ban ban réaction ban ban jàng waaw moom moom li ma wax sama waxu dem mooy nekk sama waxu tey dama ne ak lu lu waa tënk-tënk rek naa ne kat doomu aadama bi moo gën a foor man Sidi Fall de su ma tey laay dee booy boo nga xam ne tey laay dee ndaxte laa gëm ma waxee su ma lii dinaa ko def gëmal ne dinaa ko def moo tax man bi mu ñëwee ne defatul eh, troisième mandat ma ne malheureusement man sax ànd moon si loolu mu def ko kon maa moom bokk nañ xaw xaw nañ bokk gis-gis si fenn muy kàddu dont kon loi tënk na ko mayoon ko tey ji mu nekkaatoon dem troisième candidat mais comme loi tënk loi may na ko mais kàddu bi gi mu waxoon ne ñaari mandat doy na tax mu taxaw si kanamu askan bi ne leen ñaari mandat yooyu du ma ko weesu yaakaar naa ne kàddu mooy lépp te doomu aadama nag mu xasee manqué kàddu rek naa amatul dara man moom foofu laa ko nawee ba tey ba tax na ma ne fu ma topp ko ci lépp ndax kàddu bu demoon tey ji nag daal ne day dem ay troisième mandat moom bu waxoon tey ji ne de moom day bokk man moom damay day nii lay jaar ma jaar ne le yàlla dimbali nag bu mu nee nee bokkut mais tey tey bi mu defee lu am ay leader yu bëri rafetlu ko ci jël ci engagement bi ak fonk kàddu boobu mais lenn ci ci ay wujjam ci wàllu politique ñoom contraire bi lañ ko gisee mooy pression bi senes bi ak yooyu moo tax mu mu mu mu mais ba tey mi ngi am parce que boo xoolee ci biir waxam nee na mënoon naa ko def. non non loolu moom man yaakaaruma ko parce que li may wax chaque jour fii suma gars rek borom caqu neen du xeex ak borom baatu neen état su ne lii da koy def. yaakaar naa ne bi ci ñuy xool référence rek dañ koy xool suñu Ablaye Wade troisième mandat poussé na fi jàll. wax jee bari rek de mais su demoon tamit gars yi du dem lu dul élection la ñuy dem bu ñu koy voté voté ko bu ñu ko dul voté voté ko donte ko nag dina métti ndax su demoon élection moom réew mi day gën a tàngati rek kon dañuy sant yàlla bi ko doole leel kattanam dooleel kaak waxam ba mu waxoon mu sàmm ko ba tax mu ne dematul élection kon dañ ciy sant yàlla. te bi mu njëkkee bi mu mujjee Paris ci mu wax mooy euh, war ngeen a mën a doon benn gën a wàccaat ci base bi ngeen liggéey ba 2024 incha allah ñu mën a juraat réew mi ak yu mel noonu donc ak li mu ko waxee noonu yëpp tey est-ce que du du du bu maanaam gëm loolu loolu moom ñëpp gëmoon nañ ni que ni moom candidat yi nekk 2024. donc li mu doon wax ne mboo kii Benno Bokk Yaakaar bi nañ gën a boo mouvement président nañ gën a ànd gën a liggéey pour ñu mën a continuer euh, kii projet yi nga xam ne am nañ ko ñu mën koo mën mën ko àggale ak yu mu noonu donc ñu dem ba ci moment mu ne moom nekkatul vraiment loolu si mais est-ce que xam nga leen dama koy wax chaque jour Macky Sall actuel gisuma ku ko dàq politique si Sénégal jamono ji may tax di wax ak yow du question nag fa laa féete wala leen de mais actuellement may wax yow ñoo ma gis fii si politicien Sénégal gisuma ku ko dàq politique yi mu doon def yëpp xam naa ay stratégie yu mu doon teg dong la mais moom leeral na ko moom carrément ne du dem mais faaw mu teg loolu wala di wax rek dañuy xam na leen la laa bëgg nit ñi xam ko ndax man Macky Sall Abdoulaye Wade moo ko yore te Abdoulaye Wade il est meilleur ñëpp nangu lañ ko lool te Macky Sall doomu Abdoulaye Wade la kenn dàq fii si Sénégal nañ ko nangul loolu rek. kenn dàq ko politique ñu nangul ko. ñu nañ ko nangul loolu léegi tey mu a tànn ci mouvement présidentiel bi ak noonu. noo jàngatee loolu. waaw li mu a tànn moom ni comme moom lañ gëm yaakaar naa ne su waxee ne xaadim laa tànn war na mën a ànd ak xaadim bu ne loosoo ñoo mën a ànd dañoo bokkul gis-gis foofu man man maa moom bokkuñu foofu gis-gis ndax xam naa ne tey jii am na ku a wax ne si la ñi bëgg tànn su ko waxoon ne moom si laay tànn man damay jaari ne le parce que ñoo xam ne moom doyuñu ma wax dëgg yàlla non si si président laa topp. mais dama xam ne ñoom ñi ko topp ñoom fi ne fu président ne góos góos la bu ne droite bu ne tàng na ñu ne ñu ne jër bu ne bu ne sedd na ñu ne guy man mais nag. mais bu ne wax na ñu ne taal kon. <laughs> <laughs> waaw mais dama xam ne li nekk si bopp Macky Sall du si yeneen leader yi mu nar a tànn du si yeneen leader yi mu nar a tànn te fan yaa ngi gis ne ñu ngi jàppante si président Moustapha Niasse moom dañuy wax dëgg yéen xam ngeen ne am na yenn candidat yoo xam ne ay candidat xusma ñàpp ñooñu yow man bu ndee ma élection sax mënuñu maa gagné c'est-à-dire que nekk xam nga ki la mais tey euh, olof wax ne ndaw lu nekk darajay kala yónni rek ngay ngay taxawee tey jàpp naa ne tey fi fi fi réew mi toll président Macky Sall ku mu tànn rek am na ay qualité yu am na lu mu gis yow ba tax mu tax c'est-à-dire waratu tollatul foo xam ne day wax ne Sidé ma neex wala Xaadim Mbaye moo ma neex wala nangam dañuy wax dëgg kon jàpp naa ne tey comme a mouvement présidentiel bi yëpp Benno Bokk Yaakaar muy APR donc ñëpp war nañu mën a d'accord que ni ki président tànn baax euh, bu ñu wantee dëgg rek te yàlla tax dafa am benn loo xam ne dama koy répéter chaque jour gis nga dafa am régime boo xam ne léegi sénégalais dañ see jug bu baax dañoo yeew gis nga benn comme li fi nekkoon si ay PS am la kii euh, Senghor jug ne am la kii Abdou Diouf toogal plus de 40 ans gisuñu si benn développement si Sénégal ñu jug Abdoulaye Wade noonu ko def ñu bañal ko actuellement loolu la ñuy taw te Macky Sall tey su jigoon daal di teg keneen li askan bi di wax même régime bi mooy continuer te si ñooñu muy teg nooñu ñi mu nar a teg donte ko moom kàngam la. mais lu mu doon li ñu doon kàmm moom lu mu doon kàngam kàngam est ka que ñam teg ay kangam lañ kon moom moo tax ñu ne ñu ñuy fal nañ ko xoolaat bu baax comme ni nga ko waxee léegi léegi rek du ab xaari moo a neex rek ñu ne nañ ko def président wala ab Sidi Fall moo mën neex rek ñu ne non nañ ko jël def président affaire dafay laaj ñuy xool kii ba am na compétence bi mais bu ñu ko defee ay parparloo ay yaama far ay doomu ndey ak ay doom bàjjan lu tardé Sénégal lu nekk rek loolu ko tardé. mais tey tey ku si mel ni président Abdoulaye Wade bi nga wax bi mu ñëwee yaakaar naa euh, mouvement libéral euh, ku nekk gis na 2000 2000 euh, ba 2012 projet yi nga xam ne tey liggéey bi nga xam président Abdoulaye Wade am def na ko fii ci côté infrastructure bëri na ay affaires yoo xam ne donc tey Sénégal côté yu bëri yoo xam ne da ci xawoon tardé grâce à Abdoulaye Wade donc Sénégal dabe na ci ba raw ci ay pays yu bëree bëree bëree bëree bëri donc président Macky Sall bu ñëwee 2012 ba ba fii may fi réew mi ci côté infrastructure lu mu tëdd ñam naa ko neex na ba naa ko amul est-ce que tey comme ay lii naa nangam jàpp naa tey ak président projet yi nga xam donc mébét yi mu am donc ci Sénégal tey est-ce que jurul rek man dama jàpp ne tey yéen euh, sûrement mouvement présidentiel bi war ngeen def la tout wu ba 2024 ki fi président Macky Sall di teg candidat boobu noonu bu demee élection mu gagné premier tour. waaw mooy li mu la wax rek actuellement nii lépp lu Abdoulaye doo waxoon ne libéraux yi ñoo fi nekk diiran cinquante ans la wax su ma jumut actuel ñu ngi si vingt quatre ans su ma jumut ak douze ans président Abdoulaye Wade ak douze ans wu Macky Sall ça fait vingt quatre des des vingt six ans waaw vingt six ans yooyu des teewu tamit libéraux yi ñoo koy gérer ba léegi rek libéral yooyu mu waxoon ñoo koy jël ba léegi mais fii comme fa nga pënd bu réegut moom mu ne ne kii wala kii waaw. mais mais pënd bi moom ñi muy ñàkk-ñàkk wuri xanaa nag candidat yi nga xam ne si probablement nii ñu affiché wu ñëpp nga xam ne ci maam ci la xel yëpp baraake wu euh, Amadou Bala ak ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo yaakaar naa ñaari candidat yi bokk na ci probablement ñi gën a fës ci ñii ñi jàpp ne président ñaar ñi buy tànn wuri ci euh, maam am na ku mu ci war tànn doon coow bëri na ku nekk jógee na ci làng gi ne bëgg naa wala nangam coow li bëri na mais li si président du PM li si président du li si président du maire. d' accord mais ñoom ñaar tey bu ñoom ñaar tey sa xalaat sa xalaat bu gàtt. waaw non sama xalaat bu gàtt moom sama xalaat moo parparloo defuma dara. man sama xalaat bu gàtt actuellement man Amadou Ba moo ma doy. man ah, sama xalaat nag laa waxee. waaw sama xalaat Amadou Ba ah, moo ma doy man. ok léegi lan lan moo tax nga jàpp ne Amadou Ba moo la doy. que c'est nag ñëkk jàmm te Sénégal jàmm rek lañ soxla te gis naa ne Amadou Ba moom si mi opposant beeg ñëpp jàmm ak salaam si ak ñoom. te comme dañoo toll foo xam ne jàmm rek la wër doxuñu si lenn si loolu jàmm kon dañuy ñaan yàlla réew mi ko yolle mu yor ko si jàmm si Amadou Ba kon kon kon bu di ànd moom di jàppale mouvement présidentiel. déet non <laughs> moom a doy si laa mais tey jii <laughs> man moom sama pënd bu fenn. Ah. <laughs> waaw yow daal ba tey yaa ngi continué. non man moom sama ah. ba léegi mi ngi fulu si man. parce que maa ngi seet. parce que li may wax chaque jour rek dama nekk ndaw ñu yónni ma yàqamti ma te ji da caare kaw rawatina guy Fatou may gii ma dëkk ñoo def si ñun yaakaar ñu war leen a poté lu baax kon nag suñu la ñuy teg seen loxo si ndab li dara rek bëgg nañ lu ñu fay yàq lu nekk rek na nekk lu ñor xom waaw mi ngi noonu SBT Média la coowal politique ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Sidi Fall macha allah dégg ngeen fi nag ah. mais ñu ñu ñu jeexalee ko ak benn ndax yaakaar naa fi ne ni sept mois moo ci des euh, wëri wa dem këng dañ naan bàgg war mbaam lu waaye doon jaay tey mu lamb tey ci fii ak euh, mois wala huit mois est ce que tey muy mouvement présidentiel muy opposition est ce que war nañ ci mën a kenn ku si nekk war nga si mën a am candidat boo xam si ni tey euh, élection yi da nga salaamaaleykum midi une heure donc pënd ba pënd ba wëri mu leer carte gi leer moment bii nii muy mouvement président muy opposition bi est ce que jàpp nga ne candidat yi buñ ginnaaw bu parrainage bi ñëwee ba segg ñiy jàll est ce que tey jàpp nga ne élection yi jëm ni 2024 incha allah bu incha allah di ñaan suñu borom ñu fekk ko jàmm tey jàmm ci jàpp nga ne premier tour mën naa am. non premier tour bu soobee yàlla premier si si kaw nag xamaguma parrainage bi nag kan ak kan lay jàllale ak kandaay yi kan kan lay doon liñ jot a xam si politique quoi. xamaguñ ko bu ñu xamoon tey ne candidat bi comme ñu xam ne Amadou Ba moo dem Bougane moo dem xalifa wala kii dama tuddati Karim ñu mën a xam. Sonko tax li mu ko candidat la <laughs> ah <laughs> kooku moom maa moom yow dañuy xaar tuuti quoi day xaar moom day xaar ba 2029. day xaar ba 2029. ah bon waaw li nga wax ni boo ak li patriote di wax de. patriote seen seen gis-gis bopp. ñoom ñoom li ñu wax dafa leer candidat par force. waaw loolu moom. ñu waxoon nañ ne carrément liste bi su sa su Ousmane Sonko demut législative yi du am mais loo si gis Ousmane doonul candidat doonul candidat doonul tëdd si doonul dara te teewul élection am na. mais teewul législative nga bàcc bàccal na leen bu baax a baax de moom. teewul ñam ngeen. waaw dara mais présidentielle yi tamit moom du bokk. nga ne 2024 moom du doon candidat. Ah waaw waaw ah, ay say dossiers yow yow say dossiers leerul fii ñun ñëpp ay sénégalais lañ. ay dossiers leerul comme. ay dossiers comme leerul comme mi ngi si loxoy yoon tant que féetagul si la génnagul si loxoy yoon mu ñëw ko ko wax ne ko lii ak lii. mais mais mais li sénégalais yi comprendre ba léegi maam Ousmane Sonko nu mu mën a nekk ci loxoy yoon boobu ba léegi te nekk këram nag. Sénégal moom mooy Sénégal damay wax chaque jour rek lii ñun ñun ñu judd bëkki de Ndiaye sax ñu ngi koy doog a teg suñu bët jàpp nit ki te mënut a dem ndax lan kenn mënu la wax ne léegi lii yoo tax kenn tëju ko nga am arrestation te mënu laa jébal police mënu la jébal yoon mooy Sénégal li tax nag demul nag ñoom ñoo xam mais d' autre façon man li ma si jot a xam mooy xam naa ne carrément képp ko am ak yoon képp ko am ak yoon. élection doo fa dem gisoon nañ fi Karim Wade gisoon nañ fi Khalifa Sall. Kaaw Wade Khalifa bokkul kii beneen Kaa la. déet même Kaa bu dee Kaaw Karim Wade bañu ko ba dañ ko génn fii exilé ko yóbbu ko cest ko dire que kooku bokkul. Khalifa Sall gis nga li li li nga ko jàppee donc tey bu nemee ba nangoo fay ay courson ak yeneen ak yeneen donc tey am na yu bëri yoo xam si ni mënuñ cee mënuñ cee mënuñ cee avancé mais ah, Kaa bi non non xaar non non Kaa bii nag bokkul Kaa us moom bokkul même cas la rek. yoon nga amal yoon nga amal yoon. mais bi ñu amee yoon problème yoon dana jàpp mais kii dafa am ak yoon problème ba pare yoon jàpp yoon am yéen yoon jàpp leen. xañ na mën nañ ne yoon la amal problème. si yoon la amal problème. moom li mu mës a gis mooy complot la yéen nekk si ginnaaw affaire bi di manipuler affaire bi. loolu moom waxu politicien rek. Ah. waxu politicien dong la mais est-ce que est-ce que la. même su mujjee am raison waxu politicien la ay complot la complot waxu politicien dong la. man xam nga li ma gëm seen loxo mu see jóg moom li ma man li ma gëm. moom bu dee defut waxut mu woote woon ne na ko yóbbu projet ñu dem projet na dem taxaw defoon face dem na deful face to bi léegi nag carrément nañ ko toppatoo la loolu lépp yow fi la woon ndaw si lu dul lii lañ la toppee na dem teewul ñu jébal ko yoon mais bu mu woote waat leneen ak leneen suñu Sénégal gi dañu ne jàmm lañ bëgg. ñaanuñu yàlla ko yoon loolu lañ ñaanu jàmm ak ko bëgg suñu mag ñu bàyyi loolu lañ ko bàyyi SBT Média la macha allah di wax ne am nañu mbégte ak kontaan bu baax a baax alof day wax nag la duusi nag xësu ci nit li si ci li ku jël coo toppal te yaakaar naa fi ne nii cool yi topp ndax fi ne nii ba 2024 fi ne nii xamugoo yow foo féete ndax président ngay kon ne mouvement présidentiel ngay àndal wala dafa am leader yu waxtaan ak yow ci candidat yi waaw am na leader si si loolu su ma su ma la nëbbut am na leader yi jot a ñëw waxtaan mais joxaguñu kenn suñu bop du mu leer. dinaa moo tax nga fi ne nii nga nga ok. yëpp dem nañ ah loolu ngay xaar mercato bi ok. non non mercato duñu yóbbu. Ah. li ñu dem yow xam nga bu baax. la yóbbu. non mercato élection yi ma ñu ma yóbbu yëpp gis nga ah, ah. parce que non dañuy wax dëgg équipe bi gagné kenn ko kenn ko. fi gis xam ne ñii ko ànd ñoom gagné di ko fa bàyyi mais non daa ko non nangul naa la mais mouvement seen mouvement bi hmm. tey législative élection locale yi ak législative yi donc tey ñi nga xam ne ñëwoon nañ def si yéen waxtaan ak yéen gis nga résultat bi am ñoom xam ne rëccuwul waaw mais tey bu est-ce du loolu la gars yi xam ba tax ñu bëgg mercato lii ay affaire gox de lii prix lii mi la réew mi. lii réew mi la lii du ay gox de. moo doon wax la loolu. Ah. lii présidentiel la. moo tax dañ koy seggi seggaat ndax xam nga li si chaque jour rek li ko encadré moo bëri ay borom bopp lañ. jërëjëf waaw ay ñoo xam ne ay kàngam lañ ñoo ko encadré. fii daal léegi dañ yow dañ teg suñu baaram ba président tànn mu ñëwaat fi àggale xool ba xam yow ban gis-gis nga ci léegi ñu bàyyi la ko tàggoo ak ñi nga xam ñu ngi lay suivre à travers SBT joxe sa euh, Daniel Ka. waaw di sant yàlla rek di am kontaante loolu si yow di wax ne yow li wax saa su nekk rek dañuy ñaan yàlla ñu koy defee nii ay live ba si télé yegg si lépp si kàttanu yàlla te dinay am bi soobee rab bi parce que saa suñu la soxlaa rek fu ñu lay jàpp da nga naan la desee di am kontante loolu nag di toog suma grand frère bi nga xam ne du ma yàgg di jug di ko wax moo def si man politique donte ko yàlla def ma may mbooloo muy comme booyi nii mais suma demee bay dund politique rek à cause de lui moom moo ko jàpp sama loxo bi na ma kaañ politique yi parce que li nga bëgg pour nga am ko président actuel <laughs> <laughs> waaw fayda actuel waaw moom dafa moom si boppam lépp la moo xam si politique rek moo ko waral waaw moo tax dëkk sant bu baax di ko gërëm di sant tamit jida caalay kooku yëpp rawatina guy Fatou Mega jigéen ñeeg góor ñëpp ñu leen di sant parce que bu ñu gisee seen di ñëw rek dañu ma laaj di xel xew fekk waxuma kenn dara xam naa ne benn émission bu may tourné ak maas rek la waaw mais yaakaar nañ ne Sidi daal moom bu wulee rek mooy loolu ba tax may mas masawu ñoom ñëpp di leen bala àq bu baax a baax di am kontaan lool. ci si dalal gi ma dalal waaw di wax ne SBT si kaw sa kanam rek. jërëjëf dig daje ak beneen daanaan ci seen émission coowal politique jërë ngeen jëf.